livre rouge lañ war a bind ci moom moo tax sëñ bi dugal na penalty yi quoi. salaamaaleykum patriote yi maa ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaar leen jox seen wàccuwaay siyaar leen jox seen wàccuwaay pourtant sëñ bi wax na dëgg de vraiment c'est parfaitement d'accord Macky moom livre blanc kenn wu nu koo bind ci moom bu ñuy bind ci moom livre rouge lañu war a binde ci moom parce que Macky Sall lim fi def ci ay mbon-mbon. bu mu doon bind rive rouge di ko bind di ko di ko bind ci dereeti ñi nga xam ne de teg na def na leen ci ñoom assassinat livre bi dana fees dell livre rouge koo xam ne yow yaa jël François Mancabou nga mën a taxaw ne seetaan ngeen ko muy mbëkk miir bi treize minutes doo ko faatu Didier yi Fulbert sàmm jeunesse bi lu mat quatre-vingts personnes ñu rey leen jël ay nit torturer leen ñooñu ñooy taxaw naan dañuy def euh, li livre blanc moo tax c'est parfaitement d'accord ci li sëñ bi wax ne day bind livre rouge Macky bu nu bind ci moom livre rouge la ñu war a bind ci moom crime yi nga xam ne def na ko ci réew mi amul benn président boo xam ne mas na koo def ci ay mbonte ci ay ñaawteef fii Sénégal lañ demoon ba ay takk der jël xale bu ndaw def ko bouclier su gars yi di sànni ay xeer ñu teg ko ci kanam fii Sénégal fi leen dem di jël ay handicapé di leen di leen wéq di leen jël di leen dugal ci oto gendarmerie yi ay xale yu ndaw yoo xam ne seen yoon nekk ci xeex bi ñu di leen rey di sànq ay doomi aadama ñooñu ñoo am ñàkkug jomuk naan dañuy bind livre blanc moo tax man vraiment dafa mel ne sëñ bi dafa nekk sama biir xel parce que man livre rouge Macky Sall livre rouge lañu war a bind ci moom moo tax sëñ bi dugal na penalty quoi.